<laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf bito kon la moom moo doon togg yépp na ko yàq instant bi nag raxasal nañ la bool yi ba mu set <laughs> bu tegal nañ la ko indi nañ la cunwaar bi hmm. teggil nañ la cilli ci gaz bi tegal la ci suuf hmm. indi nañ la sax morceau boo koy jàppee pour nga bañ a lakk ñoo mbirum terrain wu dix mille mètres carrés yi nga xamante ne dañ ko offrir woon euh, rone Yéfét xaw ma nan. Mhm. te mu nekk ci littoral bi. Mhm. te ñu wax ne le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak le premier ministre Ousmane Sonko maanaam le régime daal nañ ko récupérer euh, loolu laa bëgg nga faram fàcceen ñu ko leeralal ko suñu mbokk internet yi nga xamante ne boobu ba léegi yaa leen fi toogloo. Mm. di leen xaar à la parole Momo. dëggal loolu Vito. dëggal ni ma ko joxe. non dafa aay. à <laughs> vous la parole. dafa <laughs> micro bi ne assemblée nationale. il est bon acier wu acier wu. acier wu damay xëccaat micro bi tuuti. moom moo acier comme ni nga ko waxee. Mhm. Mouhamed noonu la demee. Mhm. muy euh, suufu Sénégal bu toll ci dix mille mètres mhm. boo xamante ne ni nguur gi fi nekkoon dañu ko joxoon. maanaam baay jox ko ki nga xam ne c'est un homme d'affaires bu tudd Ron Yefe donc euh, Ron Yefe moomu maanaam dix mille mètres yi état du Sénégal dañ ko koo jox ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dinaa ci ñëw euh, léegi léegi mais loolu. dafa nekk loo xam ne day soulever beneen yeneen ak c'est-à-dire li may wax à chaque fois dafa am mbir yoo xam ne c'est lié boo si tuddee benn rek. dafa am yeneen ak yeneen ak yeneen yuy ñëw. mooy suufu Sénégal ñun Sénégal suñu dëkk ñun ñoo ko moom. suufu Sénégal ñu xëy bis yëkkati lu toll ci dix mille mètres carrés. Mhm. maanaam le président de la moo ko def. yëkkati ko ne daf koy jox benn homme d'affaires israélien bu tudd Ron Yefe. Mhm. jox ko suuf si si biir suuf si mu koy jox am na ci espace boo xamante ne nii un nom d'affaires sénégalais moom moo ko moom mais dasee topp dawa dawa dawa dawa dawa dawa daw ba mënul ci ci dara ñu jaay ko doole ñu mhm. jël suuf si maanaam xañ ko. l'homme d'affaires sénégalais dem xool homme d'affaires israélien na ko am dix mille mètres carré mi ngi nii Ron Yeffe yow yaa ko moom léegi rone Yeffe moom yow doo posé wu la question moom moom mooy kan moom ba <laughs> Macky Sall war a yëkkati euh, lu toll noonu jëm ak lu mu doon ci Sénégal mhm. et pour man loolu moom mooy la vraie la la la vraie question Ron Yeffe soo bëggee xam moom mooy kan déjà da ngay interroger wu ci moom l'homme d'affaires bi ju dina leen wan image yu image yu image yu roon roon yëfe boobu noonu ngeen xàmmee ko noonu moo moo moo westam bu rëy boobu mhm. donc kooku mooy ron yëfe moom mooy israélien bi donc loolu dafa lay ci relation Macky Sall ak Israël te ba foofu bu ñu fa duggee mooy gën a xóot waaye kii en tant que israélien yemul ci dix mille euh, mètres carrés yi nga xamante ne nii jox nañ ko ko mais dafa ñëw au Sénégal ñu jox ko un contrat de trente et un milliards du sax jox dañ ko ko may muy lu jëm ci construction bu résidence Amadou Mahtar Mbow c'est-à-dire nguur gi fi nekkoon ñoom moom xaw ma lan la defal gouvernement bi te loolu dinañ ci ñëw mais dañ doon yëkkati ay marché yoo xam ne nañ ko ko doon joxee du tegu ci yoon mais forcément dañ koy yëkkati jox ko ko moom il était consul honoraire du Sénégal à Tel Aviv ñu doon bi ñuy tabax li nga xam ne moom moo di pavillon universitaire euh, bi nga xamante ne nii dañ ko jox entreprise am muy euh, DSC. Mhm. mais loolu moo neex euh, Mouhamed. Mhm. mooy xam nga parfois da ngay dégg ñu naan dañuy jël alal c'est-à-dire loo xam ne mën nga koo jox Vito mii mhm. fay ko 1000 francs mu defal la ko nga dem fay vingt mille francs mu defal la déedéet du ko defar day tekk xaalis bi moom day tekk ci xaalis bi maanaam da koy may. c'est-à-dire dix mille francs moo war a defar lii. Mhm. ma yëkkati trente mille francs jox ko israélien israélien mu tekki vingt mille francs yi mu des dix mille mu jox ko Vito mi sénégalais mu liggéey ko. et foofu loolu lañ def ak euh, ak ak ak ak kaaw ron yëfe bii nii. Mhm. parce que pour construction wu. Euh, li nga xam ne moom mooy pavillon universitaire bi xoolal rek xeetu pratique yi maanaam lii daf lay delloowaat ci waxu Adama Faya mooy ñun. ga gangu bandi moo jiite woon réew mi te loolu dama koy démontrer léegi te am na yu si gën a garaaw dinaa si ñëw léegi euh, moom d'ailleurs ñoom ñooy ñooy ñooy di seen biir kàddu yi kàddu yi ba Jaatara la jamono avant muy transhumé moom moo ñëw di yoole bi muy yoole moom euh, Ron Yéfé nekk un juif américain ak Macky Sall mhm. euh, gannaaw création entreprise bi c'est-à-dire ak à quelques jours maanaam dañuy ñëw ba contrat bi nekk nii waa ji créé kon comme nga créé entreprise bi tey ñu teg ci ay fan ñu yëkkati marché bi jox ko. marché bi marché wu 16 milliards la maanaam moom mi doon yëfee moom moo encaissé 16 milliards yi. mais marché bi moom doon yëfee bi mu encaissé 16 milliards yi dafa yëkkatiwaat marché bi joxaat ko un sénégalais à à à à léegi 9 milliards moom da koy jël noonu keese si poche am tranquillement moom doon yëfee. Eh cest à lu mënoon a jar 7 milliards pourquoi yëkkatiwuñu 7 milliards yi jox ko sénégalais mu liggéey ko mais dañuy dem jox 16 milliards yi ron jël 16 milliards yi képp 9 milliards jël 7 milliards jox ko un sénégalais boo xam ne ñoom xam nañ ne mën na liggéey bi mais ron moo ko koy jox moom mu liggéey ko. pourquoi mënuñ dem jox ko ko directement moom la. léegi nag ron moomu moom moom mooy kan ba ñu war a def pratique yooyu yëpp te foofu laa jëm. moom mooy xeetu pratique yi nga xam ne nii moom moo moom moom moo amoon euh, ci biir réew mi ci pavillon spécial bëri na ay marché yoo xamante ne nii. Mhm. Euh, dañ ko ko doon jox mu nekk un homme d'affaires boo xam ne très puissant mais pour nga comprendre lan moo xew entre Macky ak kooku mhm. il faut nga comprendre relation Macky Sall ak Israël c'est-à-dire. da ngay gis le président Bassirou Diomaye fay tout le temps. Mm-hmm. ci waxam muy muy ñaawlu la nga xam ne mi ngi xew entre Israël ak Palestine. ak Palestine nga dégg Macky Sall mu def ko. Mm-hmm. jamais du ko mos a def parce que Macky Sall Israël dañoo bokk si ay ay ay collaborateurs am yu ko gën a jege. rawatina nag si lu jëm ci wàllu ñaawteef et ça c'est une réalité te jàpp naa ne jamono bi mbir yi di tar tour Israël dafa doon dafa doon revenir à chaque fois je peux citer le nom de Gabi Peretz par exemple nga xam ne contrat ci armement. yi nga xam ne tey amoon na ci ci ci diggante yaa ngi ñëw mhm. maanaam lépp loo xam ne dafa jëmoon ci wàllu achat d'armement mhm. lépp lu jëm ci sàccum élection lépp lu jëm ci ñoo xam ne yaa ngi fàttaliku mhm. bi ñu gisee ay takk der yoo xam ne dañoo muur seeni kanam waaye mu am ci koo xam ne dafa mel yaram bi dafa xaw a feeñ bañ naan kii ndax du ay Israël yoo xam ne dañ leen a jël dugal leen ci biir suñu ay takk der. je pense jour bi Sonko daan wuy ji la. ñuy toj kii bi ñuy toj oto <laughs> léegi nag loolu yëpp. ay faux compte wàllum faux compte. ci loolu it mi ngi si biir loolu it mi ngi si biir. Mhm. maanaam dafa am benn immeuble bu nekk fii ci Dakar fu soriwul mhm. place de l'indépendance. israélien dañ fa installé woon matériel boo xam ne moo doon waral yow nga jékki-jékki wuy téléphone boo nee Macky Sall nangam ak nangam bala ngaa pare ñu fekk la sa kër jàppale yóbbu mooy espionnage parce que nag si àdduna bi soo nee espionnage rek. Mhm. dañ naan la Israël ñoom loolu seen xarañteef la. Mhm. seen point Macky Sall nag dafa am yooyu mu doon maanaam ay mbirum armement ay sàcc élection ay espionner nit ñi cest à xeetu pratique boobu noonu Macky Sall moom ñooñu ñëw si nekkoon ay partenaires am muy israéliens yi te dañ doon ñëw ci biir réew mi seen ay entreprise nekk ci biir réew mi mais le ministre des finance bi fi nekkoon di Abdoulaye Daouda Diallo defal na exonération totale ci wàllu TVA waxuma. Gabi Perez de mais famille wu Gabi Perez te li may wax nii. Hmm. boo leen delloo dinaa leen wax date bi damay bañ a juum. Hmm. boo leen delloo si benn euh, conférence de presse bu Ousmane Sonko defoon fii ci siège hmm. bi muy tudd Gabi Perez bu nga demee ngeen seetaanaat ko. ces révélations là yu si bëri ñoom xamoon nañ ko moo tax tey soo gisee ñu doxee nii mooy laataa ñuy am balaa ñuy agsi si pouvoir xamoon nañ scandale yii yëpp moo tax dañoo agsi mais ils vont xam nañ fi ñu jëm c'est-à-dire doxuñu di wër fi ñuy dem de fi ñu war a dem xam nañ ko dañuy dox ndànk jëm fa mooy le président Bassirou Diomaye fay xam na ces pratiques yi nga xam ne moom moo doon am xam na lan moo doxoon ci diggante mm-hmm. israéliens yi ak ak ak ak ak ak ak Macky te nag mm-hmm. am na si sax Gabi Peretz bii nga xam ne àdduna boo tuddee turam ñëpp xam nañ ne kii mais ci ci ci lu jëm ci ci ci ay ay trafic lay dox. Gabi Perez foo ko wax ci àdduna bi xam nañ ci trafic d'armes lay dox ak leneen luñ mënta wax donc yooyu yëpp président Macky Sall moom. maanaam ñooñu la jàppoon ne ñooñu ñoo ko mën a jàppale pour li mu bëgg au Sénégal. Mhm. Euh, mu mu mën ko am. Mhm. te yi may wax nii yëpp loxo président moom moo si dafay dem ba def ay décret. Mhm. di yëkkati ay ay ay ay ay euh, marché yu mag a mag a mag di ko di ko jébbal ki nga xamante ne nii moom mooy moom mooy moom mooy Gabi Peretz ak ki ma doon wax léegi. muy Ron Yefe euh, ak sax ñeneen ak ñeneen parce que Macky Sall ak Israël. comme ni ma la ko waxee c'est c'est une longue histoire. li may wax léegi ci contrat d'armement imaginez dans un pays ñu ne ministère de l'environnement moom moo doon jënd ay armement 45 milliards 45 milliards kan moo nekkoon derrière Gabi Peretz bi donc Macky Sall lépp luy xeetu ñaawteef yi ngeen doon gis yi doon xew ci biir réew mi lu su bëri Israël dafa nekkoon derrière moo tax ngay gis maanaam ñun on est des musulmans am na loo xam ne dafa wees sax aspect musulman en tant qu'humain da ngay gis ay nasaraan ay ate yoo xam ne sax dañuy toog di naqarlu massacre bi nga xam ne moom moo am entre Israël ak Palest Palestine yow mës hmm. ngaa dégg benn yoon Macky Sall wax ba tudd Palestine parce que ñooñu la jàpp ne yàlla nag daf leen a may ñëpp xam nañu juif yi yàlla daf leen a may euh, ci ci ci wàllu xarañte. Hmm. Euh, loo xamante ne nii moom defe naa loolu moom seen seen seen seen seen domaine la. Hmm. mu am ay entreprise ci biir réew mi yoo xamante ne amul marché boo xalaat bu ñu ko dul jox imaginer rek la fait que nga yëkkati yow dix mille. Euh, dix mètres carrés dix yoo xam ne da koy yëkkati dama ko dama ko dama ko jébbal euh, koo xamante ne c'est un homme d'affaires israélien au moment où si biir dix mille yooyu noonu un sénégalais moomul lépp de dafa am lum ci moom nga foqati ko ci sénégalais bi de force ne ko lii dama koy jox homme d'affaires israélien bi. c'est-à-dire loolu ça te xeetu pratique yi nga xamante ne nii euh, moom moo doon moom moo doon moom moo doon xew au Sénégal et je pense que beaucoup de gens avaient alerté je peux de Pape Alé Niang maa ngi fàttali ko am na article bu mu defoon boo xam ne mi ngi si doon mi ngi si doon wax ne moom dafa am njàkkare ci coopération bi am entre le Sénégal euh, ak ak ak Israël parce que à chaque fois Sénégal Israël bu ñu deflantee rek looy dégg arme mhm. looy dégg espion parce que maanaam mbiri mbiri mbiru mbiru doy waar yooyu ñoom yàlla dafa leen may xarañte ci ci côté boobu maanaam mooy tey jii ñu ne la léegi yow sa dëkk danga bëgg a kenn du yëngu parce que Macky Sall il projet boo xam ne li si jublu woon mooy kenn du yëngu Sénégal damay toog dal ci kaw nit ñi def sama troisième candidature tranquillement te dara du yëngu léegi nag loolu faa mu soxla wallu wallu bi lan la mooy dañuy dem indi ay armes yoo xam ne man gëm naa ne ces armes moom moo doon rey doomu Sénégal waaye da ngeen may espionner sénégalais parce que xarañte boobu am nañ ko. Mhm. espionner ma ba. Mhm. kuy wax téléphone la muy wax ñu ngi koy dégg soo waxee boo wax loo warta wax fa nga toog ngay toog ñu jël si la ci saasi. Mhm. nga dem ba nit ñi bu ñu wax téléphone sax am na ñoo xam ne euh, da ngay maa ngi fàttali grand benn bis may wax ak moom ba xaw am yu ma laal mu ne ma non booy ba baax na naa la woo si kanam naa la woo si kanam. <laughs> parce mais c'est boobu dafa amoon. Eh, ñi xam xam nañ ne. Euh, espion yooyu amoon na nga dem ba tey jii ñu doon euh, mettre sunu sunu sunu téléphone yi euh, su su sur écoute cest yooyu pratique yooyu doy waar yooyu nga xamante ne am na moom laay wax ne relation bi dox diggante Macky Sall ak Israël ak ñaawteef yi nga xam ne ni jot na ko def ci biir réew mi et pour man c'est très malheureux léegi nag ñi ma la wax ne la laataa ñuy agsi si nguur xam nañ fu ñu jëm mooy bu ñu agsee ci saa si xam nañ mbir mi ñu mu demee ba ñu ñëwee dañ see jot ndànk ne ko Rhône Yéfé yow lañ joxoon dix mille mètres carrés sur littoral bi Rhône da ngay xaar c'est fini et actuellement euh, li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy euh, bàyyi boobu noonu. Mhm. Euh, gouvernement bi dañu ko dañu ko dañu ko récupérer waat daal di koy mettre à la disposition de sénégalais parce que moom il avait un projet boo xam ne dafa ne woon dafa bëgg dafa bëgg def ay appartement de luxe. loolu la bëggoon loolu la bëggoon tabax moom Rhône Yéfé au moment où au Sénégal il de a des jeunes mën a jàppale. ñoo xam ne boo leen jàppale woon tey jii ñu ñu ñu def ay ay ay ay exploit ci wàllu immobilier appartement yooyu lan la si nguur gi des appartements de luxe après ñu luye ko ñu ba pare moom moo koy exploité soit mu jaay ko soit mu koy luye moom moo si am rendement et le Sénégal oui, tout un contrat de 31 milliards boo xam ne mu ngi jëmoon ci ci ci euh, construction résidence Amadou Mahtar Mbow 31 milliards imagine c'est-à-dire xoolal li gën a simple rek exemple bi ma la ñu ko jox mooy. dañoo war a tabax euh, am lu ñu war a tabax su université. ñu yëkkati 16 milliards. jox Rhône Rhône yëkkati 7 milliards fay sénégalais mu tabax ko Rhône képp ay 9 milliards cest dire loolu man li su may wax lii mooy ñun dañu war a interroger wu ci lan moo daf ñuy conforter suñu taxawaay ci ñii newoon ci ci réew mi te nekkoon fi benn xeetu banditisme d'État. li Seynabou Dramé wax dëgg la de nee na nañ làmb suñu bopp yi ba xam jaay. non mais c'est c'est extraordinaire c'est-à-dire et, et puis maanaam président boo xam ne da ngay weñ loxo yow sa entrepreneur u réew xool beneen entrepreneur u beneen réew ne ko kaay jël pour lan parce que dafa bëgg a ay ay appartement de luxe boo xam ne bon cest suñu suufu suufu réew ñu jël ko daanaka li sax boole mais am na si ñoo xamante ne mais dañ doon yëkkati suuf yi suuf si di leen ko jox. di leen ko jaay et boo génnee ci biir réew mi demal wër euh, sunu sunu sunu sunu mbokk yi nekk ci ci ci ci à l'intérieur du Sénégal am na si ñoo xam dañu am seen ay tool ñu foqati tool yi ci seen loxo. Mhm. yëkkati ko jox ko ab nasaraan. non nengale sax da nga naan Babacar Babacar Ngom mais ay ay ay étranger mhm. ñii euh, ay ay ay libanais la ñuy doon ñii yeneen yeneen réew. donc yooyu nekk ay xeetu pratique yoo xamante ne nii euh, lu doy waar la et je pense que cette révocation nekk na une bon nouvelle mooy nguur gi ñëw e dina bëri yeneen cas yu mel ni yoo xam ne dina am parce que lépp li nga xamante ne nii bien wu état la dañ see bëgg a tegaat loxo bi ndax ñi fi nekkoon dañ daan jël bien wu état di ko neexalee benn la tax ñu daan la ko neexala nag mooy ñii dañoo tooñ tooñ yu baree baree baree bëri mooy imaginel yow yéen sàcc ngeen suñu alal mm-hmm. ça dénk nañ leen quoi ñun li ñuy sonn sonn sonn yëpp yéen yéen ngi neexal ay benn om d'affaires israélien wax di ko di ko jox parce que moom nga yaakaar moo lay utal arme pour nga rey sénégalais moom nga yaakaar moo lay espionner sénégalais yi soo demee ba am problème ay sàcc élection yaa ngi fàttaliku coowal kacc kacc mhm. président Macky Sall bi mu demee ba affaire yi commencé ko sonal dafa mhm. dem def affaire à à à l'Israël ñu dem indi mooy ces faux comptes yi nga daan dégg ak yooyu ñoom ñoo nekkoon si ginnaaw parce que xare la ak mbir yooyu yàlla daf leen ci may et loolu moo doon tax nga gis benn profil boo xam ne benn waaye daf ci def Ousmane Sonko tàmbale nag sëriñ ñu ne ci réew mi mu daggal leen léegi objectif yi mooy ñu ne xool leen nitu Sonko yi ñooy saaga kilifa diine yi alors que c'est des a créé hmm. donc dañ jàppale ci plan yooyu yëpp te moom dafa yaakaaroon ci ñooñ parce que c'est un complexe ça Macky dafa dafa dafa gëm der bu weex dafa gëm nasaraan maanaam moom day jàpp ne ñoom suñ ko joxee garantie ne ko ñun mën nañ la defal lii dafa gëm ne mën nañ ko def sànq maa ngi lay wax ne dañuy def espion ak ak leneen leen loo mënta tudd parce que nag Gabi Perez naka nit ñi dem gëstul seen bopp xool ban façon nit la ak à part ak yi moom ci lan lay yëngu mhm. te loolu jàpp naa ne dafa nekk ay mbir yu mbir yu mbir yu doy waar mais daal ce qui est sûr mooy nga xam ne nii dañoo weñ loxo sénégalais mhm. jox ko euh, Gabi Perez waaye mu nekk bien wu ay bien wu état du Sénégal ñu joxoo ko di ko jox ay marché yoo xamante ne yii ci ay 31 milliards la yii ci ay 16 milliards. Mm-hmm. ñu ko ko doon jox ci loo xam ne teguwul fenn. Mm-hmm. donc euh, ron yëfe boobu moom euh, jamono ji xaw ma fan waaye suufu Sénégal moom euh, daf koy daf koy koy daal di <laughs> delloo. Ah. donc loolu moom je pense que c'est un plaisir pour képp kuy sénégalais et loolu continuer ñu topp ñi nga xam ne ñoom la ñu a topp ci biir réew mi ñu doon def loolu parce que tey. Mm-hmm. quand un ministre des finances jël mais xoolal kooku tey ñëw si biir réew mi déjà moom day gagné ay marché mu ko neexee neexee ba nga ne ko baal naa la tout ce qui est ay ay ay ay defal naa la exonération. Mhm. loolu nan lañ ko mën comprendre suñ koy jox suuf président la république mooy def décret bi. Mhm. donc ces pratiques là dafa nekk loo xam ne vraiment c'est c'est dommage te soo koy wax doo bëgg lu dul rek ñu indil ñu Macky saal fii ñu xool nu ñu jëflanteeg moom quoi. <laughs> Mbadou euh, Aïcha Aïcha xaw ma nan Aïcha Camara ala Aïcha Camara. <laughs> waaw xaw ma Aïcha Camara la xaw ma. da ngay wees foofu sax Aïcha sax li mu wax garaawul kii kay da ngay weesoog moom foofu. donc loolu loolu dafa nekk lu lu doy waar et ça permet. ñu ñaawlu ba tey comme ni kon le président Bassirou Diomaye Faye defee. Mhm. Euh, ñaawlu c'est pra li nga xam ne mooy massacre bi nga xam ne moom moo am. Euh, ca Gaza. Mhm. te comme ni ko le président de rek li waxee ci assemblée générale. Mhm. bu organisation des Nations Unies maanaam. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil de sécurité bu ONU gëmm seen i bët mel ni ñu yëgul lu xew. alors que pendant ce temps là ñu ngi rey ay nit di leen jaay doole di leen. Euh, massacré àdduna bi yëpp ñi en tout cas ñu si bëri. gëmm seen i bët te seen loxo mel ni yëguñu lu xew. merci Momo les Sénégalais ont besoin de savoir ces genres de dossiers. Mm-hmm. Euh, baax na si lool euh, par rapport ak li nga xam te moom nga si def leeral yi. en tout cas la nga toggoon temps ba nga jëloon yëpp. ba nga yekkee ñëpp kontaan nañu. jar na ko jërëjëf. Vito mm-hmm. Gaye boo amee loo si ñambaas. daggal bopp bi rek. daggal bopp <laughs> daggal bopp bi ki ñu war a dagg boppam kay xam ngeen ko. daggal bopp bi rek ku def ku def lu warul moom dañu <laughs> woo visite mu indi mafia bi <laughs> ñu daggal bopp bi parce que ñi dañu yabaate. Mhm. <laughs> ñi ñi dañu yabaate ñii seen xeetu yabaate sax xaw ma xaw ma daal heureusement yàlla baax na. Mhm. mais nag on avoir espoir. Mhm. que Dieu aime bien ce pays. ce pays. ce pays est un béni. waaw. li ñuy li ñuy xoolal kii nee na sama beau-père dix hectares la Sénégal nangu si moom. ca ca jam ñaajo. jërëjëf loolu yëpp dinañ ko tegaat seen loxo incha allah dina si bëri ay morom. bëri na bëri na fépp la c'est partout bëri ay morom. waaw ah, boo ko jëlee hmm? sax. fanay c'est comme ça fépp noonu la. Hmm. boo ko jëlee sax fexeel ba nit ki si gis ci boppam gi am ci njariñ parce que lépp lu am ci Sénégal Sénégal c'est pour les Sénégalais États-Unis c'est pour les Américains hmm. euh, France pour les Français. dëkk bu ne ak ku ko mooy fàttali même contre woyofal yi. Mhm. am na ci loxo Israël. am ci waa Israël. Israël bien sûr suba suba defal dossier woyofal. ñoom ñooma. ñooma defal ñu dossier woyofal lu lu leen jaaxal ci mi rek seen loxo nga ca. defal ñu dossier woyofal Macky ñoom la doon topp ñoom la joxoon bopp. moom moo defal ñu dossier woyofal lu ñu soxla mu jox leen. defal ñu dossier woyofal moom moo géré lépp lu ñu lépp lu mu laaj ñu jox ko. géré géré géré dossier yi waaw. gérer dossier yi euh, comme ça ñuy ñu si yeewu euh, askan wi gaa nelawuñu mhm. mais peut-être que ñu gën leen ko xamal par rapport ak euh, besoin de supplé besoin supplémentaire yi nga xam ne soxla nañ ci information mhm. euh, dañ ko des yi baax parfois yenn yoo xam te ne xawuta leer ci seeni xel buñ leen si tanee am si quelques informations yoo xamante ne ñoom amuñ ko si ñu jot leen ko parce que loolu moo ñu fi tax a toog mhm. ngir xamal askan wi leeralal leen yu bëri yoo xam